président de la république euh, son excellence Macky Sall daf ñu yabal tey. nee na président de la république son excellence Macky Sall daf leen a yabal tey. ngir ñu ñëw. ngir ñu ñëw. Massaw. Massaw. jaaleel ko Serigne bi. jaaleel ko Serigne bi nga xamante ni jàmbaar ju mag jooju di Serigne Cheikh Jëmb Fall bàyyeekoo na fi. bi nga xamee ni jàmbaar ju mag jooju di Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye jóge na fi. ñoo xam ni li nga ni mu dundee népp da koo tegoon ci li Cheikh Ibra. nga xam ne ni mu dundee yëpp da koo tegoon ci Cheikh Ibra Serigne Cheikh euh, maam Cheikh Ibra Fall li nga xamante ni moom la doon dundee nee na nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall Babal Mouridina moom la daan dundee nga xam ni lépp lépp lépp euh, tudd baatu laa ilaha illallah la nga xam ne lépp lépp tudd baatu laa ilaha illallah la di doxee ndigal di doxee ndigal ak di liggéey ak liggéey lépp jëmale ko ci sëriñ bi lépp nag jëmale ko ci sëriñ bi loolu nag moo tax nee na loolu nag moo tax bi xew-xew bi amee bi nga xamee ni bii xew-xew bi am na président de la république yabal ñu nee na président de la république Macky Sall yabal leen ngir ñu ñëw dal di koy jottali jottali sëriñ bi jaalam nee na ngir ñu ñëw jottali sëriñ bi am njaalam te dina ñëwal boppam it te président ci boppam moom Macky Sall dina ñëwal boppam di masaw bu baax a baax di masaw nag bu baax a baax loolu nga xamante ni mooy xew-xew bi nee na loolu nga xam ne mooy xew-xew bi ñaareelu euh, poñ bi nga xamante ni moo taxit euh, président yónni ñu nee na ñaareelu pàcc bi nga xam ne moo taxit président yónni leen ndox mi fan yii ñu weesu nee ndox mi nag fan yii ñu weesu suñu borom dafee wàcce lu xaw a takku suñu borom dafee wàcce ndox mu xaw a takku nga xamante ni am na njeexital bu mu def ci euh, dëkk bi nga xam ne am na njeexital bu mu def ci dëkk bi def ko tamit yeneen i gox ci def koy nag yeneen gox ci réew mi maa ngi fàttaliku bi mu mujjee ñëw fii nee na mi ngi fàttaliku bi mu jee ñëw fii ci dina mat dina toll ci weer xañ na nee na xëy na dina toll ci weer maa ngi maa ngi doon wax sëriñ bi ni ko président mi ngi ñaanlu nee na mi ngi doon wax sëriñ bi ni ko président dina ñaanlu ndax ndox mi xawoon naa takk ndax xaw ndox mi xawoon naa takk ñaan ngir suñu borom def nawetu barke ñaan ngir suñu borom def nawetu barke ndox mi wàcc nee ndox mi wàcc te jur jàmm te jur jàmm sëriñ bi maa ngi fàttaliku mu ne ma naka jekk ci loolu lañ nekkoon sëriñ bi mu ne ko naka jekk ci loolu lañ nekkoon ñaan ndox mi ñëw na alhamdulilah ndox mi ñëw na alhamdulilahi rabbil alamina bi mu ñëwee tamit bi mu ñëwee tamit am na ay euh, lu mu indil euh, yenn ci askan wi nee na am na lu mu indil yenn ci askan wi muy ci ndakaaru muy ci ndakaaru muy ci Kaolack muy ci Kaolack muy ci Mbuur muy ci Mbuur muy fiit ci Touba yi yenn muy fiit nag ci Touba Mbakke mu doon loo xamante ni bi mu amee nee na mu doon loo xam ne bi mu amee ba yegg ci yenn dayo yi ba yegg ci yenn dayo yi président dafa wax ni nañu déclenché plan Orsec président Macky Sall dafa wax nañu déclenché plan Orsec plan Orsec nag li muy wundu ministre bi nee na plan ORSEC nag li muy wundu. mooy saa yu ñu demee. mooy saa yu ñu demee. ba ni réew di doxee. ba ni réew di doxee. ak ay service ak ay service am. dafa aajo. dafa aajo. ñu gën koo baral. ñu gën koo baral. gën a taxawu askan wi. gën a taxawu askan wi. ci la ñu déclenché plan ORSEC. ci la ñu déclenché nag plan ORSEC. léegi waaye ku ne gis na ci télé yi. nee na waaye kenn ku ne gis na ci télé yi. ak ci rajo yi. ak ci rajo yi. ni xañ na nii ndox bëree léegi ci àdduna. ni xëy na ndox ni ni mu bëree léegi ci àdduna. ak loraange bi muy indi. ak loraange bi muy indi xaw na jéggi dayoo xaw na jéggi dayoo tuuti suñu mbokk yële ca Amérique suñu mbokk yële ca Amérique wala ci yeneen réew yi sax wala ci yeneen réew yi sax soo demee ci réew tugal yi soo demee ci réew tugal yi da ngay gis ni fan gis ni fan yi weesu ndox mi am na yàqu-yàqu yu mu fa indi ndox mi am na yàqu-yàqu yu mu fa indi waaye nag euh, su loolu amee waaye nag su loolu amee it ba plan Orsec ñu déclenché ko ba plan ko li ci war li ci war nag mooy président Macky Sall dafa joxe ndigal ni nañu xool nu ñu lijjantee mbir mi nu mu gën a gaawee ni nañu xool nu ñu lijjantee mbir mi nu mu gën a gaawee rawatina rawatina ci yenn yenn station yi ci yenn station yi dañ koy jëlee kër ñang yóbbu ko daaru raxmaan dañ koy jëlee nag kër ñang yóbbu ko daaru raxmaan diggante bi jàpp juróom-ñaari kilomètre genn wàll ba fukk nee diggante bi jàpp juróom-ñaari kilomètre ba fukk kilomètre juróom-ñaari kilomètre genn wàll ba juróom-ñett juróom-ñaari kilomètre genn wàll ba juróom-ñett loolu nag loolu nag ndox mi nga xamante ni moo ñëw ci bassin kër ñang ndox mi nga xam ne moo ñëw ci bassin kër ñang bassin ko ñu woo ONAS ñu woo directeur ONAS mu nga xamante ni mi ngi dépendre ci mi ngi ajoo ci euh, ministre bi Serigne Mbaye Thiam nga xam ni ONAS mi ngi dépendre ci ministre bi Serigne Mbaye Thiam dal di woo euh, entrepreneur yi daal di woon ak entrepreneur yi. nga xamante ni kii ñu jox liggéey bi tey muy Mamadou Gueye bu SVTP. nga xam ni kii ñu jox liggéey bi tey muy entrepreneur Mamadou Gueye SVT. su ma juumul mi ngi ci biir mbooloo mi. nee na su juumul mi ngi ci biir mbooloo mi. moom la ñu jox liggéey bi. moom la jox liggéey bi. bañ ko saytoo xool ko ba noppi. bañ ko saytoo xool ko ba noppi. xayma bi yegg ci ñeenti milliards. xayma bi nag àgg na ci ñeenti milliards. waaye président démb. waaye président démb mu génne benn milliard mu génne benn milliard ñu jot koo jox entrepreneur bi ñu jot koo jox entrepreneur bi nga xamante ni liggéey bi moom day daal di tàmbali nga xam ne liggéey bi moom day daal di ñu war a def benn conduite ñu war a def nag benn conduite boo xam ne day jógee Kër Ñang boo xam ne bi day jógee Kër Ñang bu mag jëm dem Daaru Rahman bu mag jëm nag Daaru Rahman dolli ci li amoon dolli nag ci li amoon waaye bu màggal gi jàllee waaye su màggal gi jàllee liggéey bi day wéy liggéey bi day wéy conduite bi ñuy teg ci kaw nee na conduite bi ñuy teg ci kaw bu màggal gi jàllee dañuy gas suul ko su gi jàllee dañuy gas suul ko ba noppi dolli ci beneen conduite ba noppi nag dellu ci beneen conduite mu nekk ñeenti conduite mu nekk ñeenti conduite yu jógee bassin Kër Ñang yu jógee bassin Kër Ñang dem ci Daaru Rahman dem ci Daaru Rahman léegi euh, loolu bokkul ak nee na loolu nag bokkul ak liggéey bi nga xamante ni dañ ko wéyal liggéey bi nga xam ne dinañ ko wéyal ci plan d'assainissement ci plan d'assainissement bu Touba bu Touba euh, sëriñ ministre bi nga xamante ni moo yor wàllu ndox bi nee na ministre bi nga xam ne moo yor wàllu ndox mi mi ngi leeral tamit mi ngi leeral tamit am na yeneen pompe yu am doole am na yeneen pompe yu am doole ndaxte fi mu ne boo xaymaa li nga xamante ni mooy pompe bassin Kër Ñang di dem Daaru Rahman nee na boo xaymaa li nga xam ne moo jógee bassin Kër Ñang di dem Daaru Rahman euh, yàgg na ci 2830 mètres cubes nee na yàgg na ci 2830 mètres cubes yaakaar naa day doon ñaari junni nee na yaakaar naa day doon ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak fanweer mètre cube mètre cube ci euh, waxtu wu ne ci waxtu wu ne waaye bu liggéey bi yembee waaye bu liggéey bi yembee ñaari junni dina ci dolli ñaari junni dina ci dolli kuwaat dina ci dolli kuwaat ci saasi dina ci dolli kuwaat saasi loolu nag du bokk ak nag du bokk euh, plan d'assainissement bu Touba bi nga xam ne ñaareelu phase bi bi nga toll ci ñaar fukki milliards ak ñett milliards ak ñett juróomi milliards yi a a am fukki milliards yi ak juróom-ñaar nga xamante ni kaddu yi nga xamante ni président waxoon na président Macky Sall waxoon na ni naa ko jot li su ñëwee na ko jot li Mamadou Gueye mi mi ngi nii sax taxaw démb viréel nañ ko un milliard nee na démb nañ ko un milliard mu nga xamante tàmbali naa indi ay machine am nee nga xam ne tàmbali naa indi ay machine am ak matériel ngir liggéey bi tàmbali nee na dégg na ko bu baax a baax. nee na am na ci mbégte mu rëy nag. ndax yitte ji ngeen ci def ak taxawaay bi. nee na sedd na bu baax a baax. nee na yaakaaram itam dolli na bu baax a baax. mi ngi sant cant gu rëy a rëy. gi ci war rek. ndax mbir mi daa doy waar fi mu toll. waaye nag sant yàlla rek ci war. mu ah, ngi jóge ci suñu na lu mu mën a doon rek suñu boroom la jógee te suñu borom yàqut fowut juumut lu mu def rek ak defar la kon nee na nan dalal suñu xel bu baax nee na ngeen santal ko président bu baax nee na fa tabarakallah xam na yéeneem xam na yitteem xam na taxawaayam nee na gis na ko bu baax a baax nee na yitte mënu weesu kon mi ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax nee na jërë ngeen jëf loolu la mu ne yéen yi nga xam ne yéen la président yónni itam ñu ngi leen baral seen cant ak seen ngërëm ndax nee na jotal ngeen yonent bi bu baax leeral ngeen ko itam feeñal ngeen ci seen yéene bopp itam nee na xam na ko bu baax a